saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa Eumeu Sène lancé roi des arènes nag laaj ba sunu lamb laaj jëmale ko ca carrière am détrôné par Modou saison blanche en vie Eumeu Sène se relèvera t roi des arènes ba mu yoroon Modou ne ko coppet yóbbu ko Parcelles Assainies saison bu ubbi bay tëj Eumeu Sène amul combat déggul combat loolee moo waral ñu sampab laaj ba xam ndax borom taay si nga dana dellu siwaat ci lamb jëm déet laaj boobee ku ci mel ni Xaadim Gajaga Lamine Seck Sowru Fall ak Aliou Ba tafaatin mën na faa jaar bokkaat ci làmb ji wala mu jaar fa bàyyi ba faaw moom daal am na yaakaar bu baax ne Eumeu Sène mën naa dellu siwaat au devant de la scène dem naa fa gis naa ko xam naa la mu yor état de forme ba mu yor ak technicité ba nekk ci moom tax na ma xam ne kii war naa mën a dellu siwaat war naa mën a amaat dara bu dee Khadim Gadiaga président Rock Énergie la mu xam ne mooy Eumeu Sène dese na fi ñaari ay bés moom Khadim Gadiaga rax naa ko xamante nañ bokkoo noon écrit daanañ jàppante di contacté xam naa li nekk na ci mbër nga xam ne façon bëree bu nekk ko te bu dee mu xam le mooy loolee moom bu ko kenn xalaat mënta nekk Eumeu Sène mu relevé wu c'est impossible Eumeu Sène mënatu ta bi ay mbiram jeex na moom ci combat bi mu jóge moo tax mënatu fee def lu mu defoon perte nga couronne perte sa revanche ak Modou ci saison balance la jëm te jege na retraite situation boobee mu nekk moo tax ma xam ne mënatu ta ci meilleur niveau bu dee Aliou ba coach bi écrit ci séerage moom la mu xam mooy Eumeu am état physique la athlète la am fula la am fayda am respect ci nit ñi ci wàllu communication kenn dàq ko communiquer ko dese ci làmb mu fas yéene koo gérer ba mu jeex tàkk mu daan combat yi ko dese ci arène bi du am benn impact ci carrière bu ko neexee nag mën naa jox ay rakam sans bëreeg ñoom Arona Sall coach la de gédd ne ca tonn ne ko moom kay jarul muy jox ay rakam sans ñun soxla nañu ko ëmma seen kay balaa moo tekki ngembam faaw mu bëreeg Lac de Guiers guddi yi ñaari mbër yi képp lay xaar di leen déglu digganteem ak Gris Bordeaux ku indi avance ñu jël ko ku pare ngir tëgg bile combat pare a soxla ci mbër yi Yékini moo bëgg tëgg sama combat ak Eumeu Sène nag gratuitement laa koy defal bu dee beneen promoteur nag may fay lu ko jar ma bëre moom waaye Yaxya Jóob Yékini moom saa yu soxlaa combat bi na ñëw dërëm du ko fay ña amagul dërëm ci seen gafaka ci saison bi ñu toll mooy waa CNG saison bi ñu génn daaw bu ñu xaymaa li CNG dagg ci mbëri tolloon na ci 9 millions waaye ren ba saison bi tijjeeg léegi 2 yu mat sëkk sax CNG mënagu Saloum ñu ñamal ko 60 000 loolee la ñu encaissé gum ca saison ba dafa mel ni ñàkk combat gi VIP yi ñàkk combat laal na leen adduna wërngal këpp la jàngaro ji di covid 19 laal waaye mbëri kenn demul ñu des ci diggu saison bi la ko jàngaro ji ne tàppit ne leen xaar leen ba déwén ñu ne déeta waaye mu tëj arène nationale tëj salle de musculation ya ñu ne déeta waaye mu jaxase leen ak président mu indi couvre feu léegi mbër mu ci guddeeti entraînement ba fekk la biti xiir gi dana bokk ci sa dal la nag wax waaye moom 15 heures